sa góor Aziz Ndiaye ñaareelam bi Aïcha Rasoul waaw Aziz Ndiaye c'est mon frère ñoo bokk Baye Alé Ndiaye Baye Alé Ndiaye c'est mon père keroog damay wax ak njaay Ndiaye mun na ma ñoo bokk yaay ñoo bokk Baye ndax ñoom ñëpp xam nañ ñu ma mel seen papa yéen ko jàmm yéen leen jàmm ñoom ñëpp. c'est ma famille maanaam ndax euh, kóllëre ki mu ko fasanteeloon mu nekk Baye Ndiaye Baye Ndiaye moo ma présenté Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye di yëkkati xaalisam di ma may Baye Ndiaye di yëkkati xaalisam di ma may maanaam ah dafa war a bégee c'est que Sénégal fi mu toll faaw kenn ku ci nekk di xool sa tra yu bàmmeel di xool xaaral rek di xool bu doon yow Aziz Ndiaye dafa njëkk am aawa amal ko ay doom gaañu mu nekk ci naqar keroog ba muy bëm ni du ko jàpp muy jooy di jooy aawam ba gisuma la fa woon gisuma fa sa moroom mu nekk ci naqar te juróog moom ay doom ah nekk ak bennam bi aaw bi ki nekk tey aawa baarakallah man su ma doon dem foire ci kër ñaareel bi laay dem aw bi musuma koo gis su ma demee ñaareel bi daf may xelli boisson dafa may teral macha allah maa ngi koy ziar. kon bu demee ba sentir ne moom mii dafa war a takkub ñaareel a ah, yàlla def mu gis Aïcha Rasoul Aïcha Rasoul di xale bu ndaw jonge rafet macha allah bëgg ko ñoom ñaan ñu bëggante. man c'est la première fois ma gis Aziz Ndiaye di fecc gis naa ko ci Dubaay bi muy feccal jabar ji macha allah dañ leen di ñaanal dañ leen di ñaanal ci daraje Seydina Muhammad weeru mu gii mu màgget ak Aïcha Rasoul màgget ak aawam bi mis Ndiaye vraiment bu nekkee yàlla namm na ci moom yeneen i jabar aussi la même chose nii lañ fi defoon sumbulu bàcc li Ablaye Diop xaas takk ko jox ko ay million yu bari rek ñu génn sëy bi du yàgg biñ ma ko laajee dama leen day yàgg de dina ci am doom bu soobee yàlla laa ilaha illallah bañ a yàgg Aïcha Rasoul dafa dof day mooy ba mu dëgër fu ñu waxee mu naan la nii mooy may deuxième si ñu Aïcha Rasoul a ngi nii de Aïcha Rasoul xam nga ne day jàpp waaye yow eh, loolu sax kenn waru koo xalaat toujours dañ leen war a ñaanal heureux ménage vraiment ñu dund ba ñuy ngénte Aïcha Rasoul di ko ngéntewaat di ko ngéntewaat tudde al amin doom tudde bay ale doom vraiment tudde mère xujje doom maanaam barakallahu man loolu lay ñaan ñaan ñuy sëy damay ñaan yàlla ñuy yokku maanaam jëm ca kaw mais patas tas man bëgguma loolu ndax euh, même bu nekkoon xale laa sax nit bu amee sëyam dama ko yéene mu nekk ak borom këram parce que loolu mooy taalu jigéen boo waree sëy sëyal te Aïcha Rassoul xale la te xam naa ne bëgg na jëkkëram kon dama leen di ñaanal ci weeru gàmmu gii ñu ne nañ dem ba màgget ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam